alhamdulilahi lkarimi siman ala stixaali bi furudin wa sunan sakartu liano qad saxani liwatani bi nafa maqani waxaadani ilay bitaani min baadi ma sababi taxayri وجرني في إلى العلوم والفوز والأمل بالمحلوم ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي خزي عن التبعا هل الذي من بمراد اقتدى في سر والجار يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربي فسان الدين وسيلتي لمالك الرفيع محمد الخير ولا سفيع وآله وصحبه النجوم الخاعر النفوس والرجيم هسا وين اليوم يا وابو خيرك في دارين لا أحاب وإنني يا بر يا كريم داين وعن شكرك لا أريم منذ جسبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين فقمت مشوبا إليك منك بك عليك والرديت عنك مفودا مسلما إليك أمري معاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما لم أجد سرواك فجدت لليوم بخير منني وقدتني لاختفاء سنين من بعد ما قدمت داو الناس يدخلني في سرك الخنازير وكدت للأمداء والمطر asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbokk yëpp di leen siyaar di leen balu ak leen balu ak ñaan suñu borom boole ñu jégal di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Muxtab Cheikh Mouhamadul Muntaqa eh, suñu borom yokk ko aw fanam ak ug wéram te gën koo kattanal ba liggéeyu lislaam bi nekk ci loxoom yóbbu ko fa kaw njort yëpp te na ànd ko ak moom ci barkeb Serigne bi. niñ ko waxee bi nga xamee ne sëriñ bi joxe na ndigal li te jaarale ko ci Cheikh Mouhamadul Basir mu sëriñ Fadilou ak sëriñ Mamor ak sëriñ Basir mu sëriñ Habib nga xam ne ñooy taxawu njàng mi eh, ñu yëgle ko eh, te fekk loolu di ndigal loo xam ne lu muy fedd li jëlee ko ca kilifaam yoo ko jiitu woon mu jóge ca sëriñ Tuubaa Cheikh Salih yàlla na suñu borom dolli ay leeram mook ñooñee ko jiitu woon ñëpp eh, mbooloo mépp biñ ko yëgee am nañ ci mbégte bu baax am ci cawarte dolli ko yaakaar ngir xam gi ñu xam alquran nga xam ne waxtu wu nekk jaam ñi dañ cee war a dellu ñu miin koyit ci waxtu wii saa buñ ci tolloo kilifa gu fi nekk di feddliwaat ndigal yooyu ba ko sëriñ Saalix tàmbalee ba léegi moo tax bi mu ko digle kilifa yi daal di def woote ba yëgle ko Eh, yëgle bi tàmbalee fii ci biir dëkk bi tàmbalee ci jumaa ji waaye yaatu ci biir dëkk bépp defe naa bi ngeen xëyee seetlu ngeen ne dafa mel ne dëkk bépp jaww ji jenn alxuraan la ndax jumaa ju nekk rek ma ngay jox ba ca moroomam moroomam di jox ba ca moroomam loolu rek nekk eh, alhamdulilah mbégte mu rëy a rëy ni ñu ko gisee nii it mbooloo mi fi mu toll nii dafa mel ne jumaa ji li ci di ker fees na ba gis ngeen fu takk ndeer na ci bitti sax mbooloo maa ngi fa toog loolu it noonu la ko sëriñ bi bëggee woon. daf ne woon jumaa ju mag ji na fees dell waaye barab yeneen bépp barab boo xam ne it ña nga fay dajee muy ci jàkka yi muy ci jumaa yi muy ci barab dajewukaay yëpp nañ ko def ci biir dëkk bi ak ci biti dëkk bi ba ci biir réew mi ak ci bitim réew mi loolu mu sant ko mbokki taalibe yëpp sàkku it ci mbokki jullit yi ñu àndandoo ko muy bisub toroxlu suñ borom jàng alxuraan euh, jéggul jéggalu suñ borom jéggaloonte ci suñu biir euh, baloon tey àq Euh, sarax ya fa di ñëw ñu jox ko néew doole yi loolu la digle woon mel na ne alhamdulilah mbooloo mi xëyee nañ ko tawfiix gi ci suñ borom defit xam nga ne tey jii mooy bisub màggaluk sëñ Abdoulahi moom sëñ Touba loolu it kon dafay tegtale rek sëriñ bi ak njabootam ni ñu taqoo ak alxuraan xam nga ne weer wi tamit euh, ku ne xam ne ci ma Mahamadoul Fadal euh, kon loolu dafay rek ay xéewal yu bëree bëri yu ci tegaloo sëriñ bi soññee ko nga gis sëriñ bi it fi mu teg alxuraan. Eh, bi muy war a yëgle lii dafa dajanteeg mu jàppoon a yëgle santaane ruuji dellu ci tool yi waaye bi mu yëgee ne bi xelam dellusee ci alxuraan ji dafa ne ah kay nañ jiital alxuraan ji ba bët set ñu xëy dellu ci liggéey bi lool it di lu am solo loo xam ne lamu ca xalaat ba tax mu def ko yàlla na ko suñu borom defal lu kawe njortam kon daal fi ñu toll defe naa ne ni ngeen ko gisee dugg ngeen ci biir jumaa ji fees na dell yokk yi fépp foo ci xam ne am nay laytaay fees na ker yi ci bitti kasaalika gis nga ci penk bi ni mu mel te biir dëkk bi it ñi nga xam ne ñi ngi ci léeg-léeg kenn jot ci waaye barab yi nekk noonu la mel fu ci nekk mbooloo ma wuyu si nañ fa bu baax a baax ñuy ñaan suñu borom tabaaraka wa taala yéen ñi euh, euh, waaw euh, loolu de lu suñ borom yombal la ndax dafa fekkoon ak nosu ci boppam am fi. mooy wet gu nekk ci dëkk bi am na fa koo xam ne moom la ñu dénk daara ya nekk foofa su ko defee ñooñu tamit ñi ëpp ci ñoom ñoo nekk ci jàkka yi ak jumaa yi nga xam ne saa bu ndigal li jubee kenn ku nekk te ndigal li buñ ko yaatalee nii mu def nga xam ne du ci jumaa ji kese waaye fépp la ku ci ne dañ naan la nga taxaw rek wet ga nga nekk su ko defee nag ñu tànn ñenn ñoo xam ne ñooy ñëw fii ñu ànd ko ngir taxaw ko fii tamit ñu fekk si waa Muxaddamatul Xidma nga xam ne ñoom jumaa ji mooy seenub liggéey su lii amee ñi ngi ci su lii amul ñi ngi ci waaye bu lii amee nag dañuy renforcer seen équipe ñoom lu ndigal li bette bette du tee da nga gis ñu taxaw taxawaay yu mat sëkk ñu ànd ceeg ñoom ci waajtaay wi ànd ci lépp noonu kon noonu lañ ko nosee nga xam ne nos bi mu fekkoon rabita bi ci biir dëkk bi euh, am vingt cinq sous section yoo xam ne bu ci ne am na ab munasex muy coordinateur boo xam ne moo ko jiite euh, kookee la ñuy wax ne wet ga féeteeg yow mbooleem lu fa ne ci ay kilifa waaye lu fa nekk ci ay pénc lu fa nekk ci ay jàkka nañu leen ca yëgalta soññ ca te ngeen taxawu ko nga xam ne da nga dem ci kenn masalan boo demee ci ki ci Daaru Xuduus dana nose ci jàkkay Daaru Xuduus ji ca jàkkay Serigne Souhaïbou ak yeneen ña nga xam ne ñoo nekk ci biir keneen koo dem soo demoon ci sura soo demoon guy mbind koo dem dana am nangami jàkka yoo xam ne danaan la jàkka ju nekk diw moo ca ne su ko defee ñooñe ñëpp nag da leen di boole euh, soññ leen ci ba nose bi nii ñu ko waxee rek su ko defee mu tàmbalee fii ci jumaa ji waaye yaatu ci biir dëkk bi waaye it yaatu ci biir bi ndax ñi nga xam ne ñoo représenté sëñ bi di di représentant xalif général yi lu bokkut ak yëgle bi ñi ci ëpp jokkoo nañoo ak ñoom téléphone leeral leen ko naka noonu mbokk yi nga xam ne ñoo nekkal rabita bi tamit ci barab yi kon nii lañ ko nosee. waa ah kay mel na ne du yàgg dara ndaw yi nga xam ne ñoom la sëriñ bi di yebal muy sëriñ Mamor ak ñi muy àndal. dana danañu ñëw suñ ñëwee ñoom it jàng ndax xam nga ne sëñ Mamor foofee ca këram ña ngi koy dundal ca jàkka ja moo tax dafay xëy ne ñoom ba ci kanam mu ñëw ak sëñ Basirum sëñ Abibu ak kilifa yi ñuy àndal suñ jullee tisbaar ba noppi ñu jàng xatmu bi su ko defee fekk xéewal yi ñëw nañ nga xam ne fu fuñ sëlmalee rek dañuy jàng xatmu bi mbooloo mi xéewlu dal di yeewiku incha allahu